Patriodi, patriodi, patriotes yi ngi leen di nuyu di leen siyaare fu patriote nekk di leen soññu ngeen jëli seen carte yi di leen soññu ngeen jëli seen carte yi coalition Jomaay mënoon na sax benn coalition ndax coalition Jomaay moom même détenu yi ku ci génn ak fulam nga jàpp ni kii mooy candidat bi waaw démb rek bi ma Cheikh ak dama japp ne Cheikh Bara Cheikh Bara moy candidat coalition Diomaye fay te ñepp non la def bo gisee gui mari Sagna mohammed Sagna non la mel dégg ba ci ñom yar gi si ñom ñepp tabarkal ku ci genn dugg sa auto yekati say loxo ah ñu na candidat ba ngi ni ndax mbolo mu la top ak ful bi lol nak amna solo lol dal nam xel lol neex na waye nak bo le ci baña sagan lo am solo la boleh boole ci baña call and ak xol gis xippi sey beut wala sey geut lu ci am solo li nak ab soñe la jeli len carte yi fan jëm carte fa man dara du aw doj nak aw doj daanaa wax jël ni doji ray yi adale moy nan fexé ba bop fas fo xol ben maire du lum kornete bop fas manam ku demone douche sax amoo ndox mo kiyé sax war nga mëna jël ci bop fas wa la boko waaw ndax ca cosaan looloo amoon waaw kon nag lii nan ci bàyyi xel képp koo xam ne saw carte sax mi ngi woon sa poche fii ba élection yi jeex saa yoo xëyee ubbi ko xool ko bul def dara luy tax muy muy am ayib ubbil xool rek dugalaat ndànk ta xam ne mooy sa addina ak sa àllaaxira woowu moo mën a dox sa digganteeg système bi la Sëriñ Tuubaa doon wax man. nit ki may yedd mooy ki nga xam ne ab xaj daal riir wuti ko muy jéem a xeex ak moom daal la day dagg sër yi xotteeku nga ne ko mbàkke nooy def mu ne du ko jar da ngay borom xaj ba mu dox sa digganteek moom fek booba laa ilaha illallah la doon wax njariñam boo dee wax laa ilaha illallah day dox sa digganteeg saytaane moo gën a gaaw nga nekk naan saytaane saytaane saytaane musulul ci borom bi ko bind. léegi nag léegi nag comme ñuy tamit carte wi nga xam ne si ne moo mën a dox suñu digganteeg système bii sa système bi daa yaatu rëy carte woowu nañ ko fonk damaa jëlale ku ko jëleegut nekkut sa poche waaye ka ko jëli sax nañ xëy saa yu xëyee na ko nemmiku kon ñi ko jëleegul waxi nopp dem leen ngeen jëli seen carte yi gis nga ful yi am na solo mbooloo mu bari mi am na solo waaye ndax kenn amul loolu jomaay dong nga ko am. ci barkeb Sonko ah ndax deg na serigne bu xorom bobu sax wax ko ne Sonko mo seexal jomay tofal ko mbolo ma ko Sonko lim yor ci seex da bari du jomay do ngay seexub Sonko Sonko ay seex la yor detini politique yi même ñun xamut ku ci génnoon yëkkat say loxo ne man lañ tajoon kaso nangam ci ci manifestation yi ya rek fo jaar ful bi top la lolou yalla defal Sonko la waye dem leen ngeen jëli carte yi. li nga xam ne mooy am njariñ jëli ko nemmiku sa bureau wat fan la nga teel a xëy bañ a tàyyel ndax mën nga koo jëli ba pare it deseg tàyyel doo teel a xëy wala nga naan naa nit ba ngoon añoo réeroo añu añoo ndekki woo woor moom neex naa bàcc gerte waaw mbàcc mi balaa bala ñuy naan kafe war na ngoon gi di dogu war na noo gis mbàcc mu leer naññ ñuy génne lu leer di génne lu xees dem leen ngeen jëli seen carte yii bu ngeen ko jëlee ngeen am ak farlu bañ a tayyel te teel a jatu dem xëdd dóor xëdd di dóor dara dëkku xëdd di door dara dëkku jëli leen carte yi jëli leen carte yi bam yi sax nga xam ne tekkiwul dara kenn bëggu ko sax système bépp a nekk ci gannaawam ndax dégg démb dégg naa ñooñu ñuy wooye ay ay toog muy dox ñaari côté ya ñoo ñoo woo Ndafa di dox ci diggante bi pour mu jàppale ko te Ndafa nee na dana ko jàppale jàppale Ndafa day gën a bon ci Amadou Ba ndax Ndafa kenn bëggu ko dañ koy gën a booleeg Amadou Ba toroxal waaye loolu carte ko man jëli leen carte yi di Amadou Ba sax fu mu jaar bu ko neexee ful ba mën naa ñëw topp ndax xaalis la yor te booy yi ay patriote lañ timbu leen joxee ñu dem ci seeni la ñëw mbu ma kon mbooloo mi bu leen ci defub takk am na ñoo xam ne jëmmi Sonko leen di dañ kumpa xool am na ñoo xam ne dañ kumpa moo leen di boole ci ful bi bu leen limaale ñooñu bu ngeen gisee ful bu fees dell muy sunu ful bari lool ay nit jàpp leen ne boo ko xaajee ñetti xaaj ñett benn xaaj bàyyi wat jëli leen carte yi Ba nag moom lu ful bari bari bari bari kenn du ko ci wateel ndax day fay ay nit sax ñu koy seetaan kii nag fayut ñu koy seetaan. day génn ñu koy seetaan ndax bëgg gin ko bëgg waaye boo bëggee nit te amoo looy xeexe lu muy jariñ jëli leen kart yi ngir yàlla jëli leen carte yi